Euh, Ousmane Sonko quand les femmes de Pastef ont voulu enclencher une grève de la fin daf leen ko tere. Mhm. Sonko est est est, est musulman très pratiquant nit ñëpp xam nañ son son son son attrait pour la pour la religion. Absolument. Pourquoi moom aussi muy engagé une grève de la faim au risque de compromettre sa santé euh, totalement. Pour le Sénégal. pour mu koy def parce que Ousmane Sonko bi mu yëkkatee projet bi di xeex pour le Sénégal dafa am ay xale yu ko gunge mais mun a xale yooyu ñaata nit lañ fi suul bi ñuy génn di xeex di manifester est-ce que dañu reppoon est-ce que bëgguñu woon seen bopp Sénégal moo leen ko jaraloon. Ousmane Sonko ne s'appartient plus moomatul boppam. bala nga naan naam ne fa. Ousmane Sonko euh, dafa subiir ay injustice subiir ay attaques dossier après dossier bu mu demee ba jàpp ne am na répit bi ñu ko barricadé këram privé ko de liberté pendant plus de cinquante cinq jours mu dem ba jàpp ni ñu xëy libérer les barricades mu foog ni peut-être que la raison est revenue que dellu nañu ginnaaw que dina am enfin la possibilité te ci loolu sax la nekkoon nag commencé di waxtaan ci ay programme am ak ay collaborateur am ba ñun bi ñu koy mujjee dégg sax ba ñu def réunion ak moom kenn ci ñun xalaatul woon lii ñu indiwaat un nouveau dossier ci kawam dossier après dossier euh, après persécution boo jàpp ni jeex na beneen bu bees ñëw tegu ci sa kaw euh, Ousmane Sonko tollu jamono boo xamante ne euh, dafa bokk ci Sénégal boo xam ni dafa am benn nouvelle offre politique bu nit ñi di wan nit ñi mooy le don de soi pour la patrie nous on n'aimera pas ça bëgguñu loolu yëkkati nañ suñu kàddu ne ko mu dakkal ko parce que jàpp nañu quand on dit le don de soi c'est l'engagement c'est la détermination c'est beaucoup de choses mais c'est pas la vie te je ne pense même pas que Ousmane Sonko décidé donner sa vie sous forme de suicide parce que wax nga ko julit la c'est pa le ca parce que ci arrestation boobu dafa amaat encore d'autres anomalies yu ñu ko bëggoon teg xam nga may mën a nag devant certains abus tu n'as de choix que les armes yu nga am entre tes mains quand on t'arrête en vendredi nga yaa ngi woor samedi toute la journée sa famille amul accès ci yow dimanche tu es obligé de poser un acte fort grève de la faim ce ne pas nu ko ñëpp jàppee dama bëgg a xaru c'est un c'est un c'est une résistance c'est un appel à respecter ses droits. mais pour laquelle on compre résistance pour laquelle on compromet sa santé. oui on prend des risques parce que euh, Ousmane Sonko discours guerrier bi mu amoon. posture yi mu amoon on s'étonne quand même qu'il choisisse ce moyen-là le moyen de se faire du mal et de faire du mal à sa famille pour résister il y a d'autres formes de résistance pas forcément grève de la faim parce que nee nañ déjà il a des il, souffre de quelques maladies waru cee boole grève de la faim balaa nga naan balaa nga naan naam nga ne fa s'il aime le Sénégal s'il veut se sacrifier euh, pour les Sénégalais il ne doit pas se laisser mourir c'est peut-être le discours euh, qu'on doit lui tenir je ne pense pas qu'il soit en train de se laisser mourir mais li ma xam rek mooy que la faim xiif mooy lu gën a tuuti ci lu Ousmane Sonko pare pour defal Sénégal Euh, am ay séquelles sax muy li gën a tuuti pour mu def ko je crois que li ñu ci war jàngat mooy quand il faut beaucoup de courage Maïmouna pour se faire pour pour dund traverser bi Ousmane Sonko di dund faut pa voir ça sur le sens de de nit ku nit ku baisser les bras parce que résister à la faim 27 jours résister à la nourriture 27 jours ce n'est pas baisser les bras Euh, nee nga léegi dafa wax a combattre avec quelle arme au Sénégal on n'a pas de de de de de guerre armée Ousmane Sonko ne pas rebelle par rapport ak li ko bëgg a def loo Ousmane Sonko n'est pas djihadiste du taal boppam Ousmane Sonko est un homme politique un homme politique dafay xeex sur le plan politique avec des arguments teg na ay argument am pour réponse lu mu am ay accusations mu teg aussi projet pour réponse lu mu am calomnie mu teg yéeneem pour réponse mu am justice dañu jël teg ko ci kawam quand on n'a plus de justice quand on bafoue ses droits ak ses libertés les plus élémentaires il te reste quoi comme arme mais écrire il l'a fait il a des livres qui sont ici se battre mener le combat être devant mobiliser tout ça il l'a fait mais il a en face de lui une machine qui veut coûte que coûte broyer pas lui pas lui mais le rêve qu'il incarne wala ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom rêve boobu ñu incarné